atelier lañ daal di amal ngir waxtaanee jafe-jafe yi nga xamante ni nii ñenn ñi dañ koy jànkonteel ngir rek daal di mën a doxi seen soxla si nuñ ko bëggee fexe ba njiit yi gën a mën a bàyyi xel ñi nga xamante ne ni dañoo daal di ñëw toog fii ci Sénégal soxla woon ku leen gunge ngir rek ñu mën a dox seeni soxla ci jàmm ak salaam. dañu bëgg a tuuti ci côté yu am ay jafe-jafe ci ak ak yeleefu euh, migrants yi maanaam que ay migrants sénégalais wala ñu jóge Sénégal dem yeneen dëkk wala ñu nekk fii en transit waaye tamit ci euh, daw làqu yi ñu nekk fii suñu biir. bëgg-bëgg ji mooy fexe ba am benn cadre de consertation ngir rek ñu mën a waxtaanee li ni mel pour rek ñu mën a gunge ñi nga xamante ni nii ñoo nekk ci bile situation. mais léegi dafa am commission spéciale buy def liggéey boobu boo xoolee yooyu yëpp ak yeneen yu ñu cité gis nañ am na amélioration mais ba léegi am na yeneen convention yoo xam ne Sénégal jot na ko signé signé waaye dafa ba léegi yoo xam ne. Euh, doxalin bi des na waaw ñun euh, rencontre bu ñu am nii c'est pour gën a renforcer loolu ne état bi yéen a ngi def yéen a ngi góorgóorlu waaye bëgg nañ tamit ngeen gën a yokk li ngeen di def. xam ne nañ ni dinañ daal taxawal benn plateforme ngir rek daal di boole seeni doole ngir rek mën a gunge ñi leen nekk ci yile jafe-jafe. ñooñu tey fu mu toll nii amuñu benn kayit boo xam ne moo leen di permettre sot ñu liggéey yóbbu seen doomi école parce que amuñu benn kayit mënuñu dellu tamit seen dëkk. je crois que côté boobu état war na mun a jël cas yooyu particulièrement jàppale leen pour ñu mun a ñu mun a installé wu fi Sénégal euh, dund comme ñu ngi ci espace CEDEAO ñu mun a xam nu ñuy def mais nekk ci bërëb amoo benn kayit pour tamit jafe-jafe la. li ni mel ñu nar koo wéyal si diocésaines yu nekk fii ci Sénégal yëpp ngir rek képp ku nekk ci biir réew mi ak bitim réew mën a dox soxlaam si jàmm ak foo mun ci jóge